on va un peu baisser les tensions en attendant de recevoir euh, <laughs> Baye Niass nee par jour sans rien faire 30 millions par mois 365 millions pas par an Baye Bass ngi lay ziar bu baax. Aïcha <laughs> Bac le poste de Drizzy aujourd'hui ça s'est porté sur quoi. non jot <laughs> seen tonton yi leen doon laaj seen CV yi nan lañ mujjee ak ñoom ndax utal na leen job ba léegi wala am nañ. ah yee. <laughs> ñu xool commentaire yi. ayca ba bàcc loo bind ni nga ne sa tonton bi la doon laaj sa CV. mujjee na la utal job wala ba léegi. wala ba léegi ayca ju dem kon ñu xool gaa yi lu ñu wax ci seen tonton yi. Jini euh, Fans nee moom mi ngi may conseillé ba léegi <laughs> kooku moom amagul moom. <laughs> booy bàyyi leen li ngeen def dafa teel. <laughs> Sam ji officiel nee na su ma amoon job du gis post bi si bay commenté <laughs> tonton kiyiti kooku moom amagul job kooku tamit amagul ba léegi. moom lu mu wax moom. caat booy lu fa nee moom sax amagul liggéey amul liggéey. <laughs> sa tonton. tonton bi moom amul liggéey di laaj CV. ba Ali nee na réunion de famille la ñuy ñëw añ bi neex rek ñu commencé dina laaj ay papier su ko defee maire bi di wax woo ko fàttali ko ko arrêté. a <laughs> waxul arrêté de arrêté. man ba léegi man ba léegi gisee ko ma ko tontaw liggéey ba léegi. yaayu Miss Dior nee na balaa ñu la koy mën a wax rek tour de famille am wala dese non. <laughs> sa nijaay nekk ci koñ bi naan la indil sa CV. <laughs> Aliou Diallo nee ñoom de seen maîtresse yi ñoo leen gënal seen jarbaat yi. wallaay wallaay maîtresse de nom may nga boobu. yow ba sa tontoo jàpp la. <laughs> Badou bu Anta nee na ki ma joxoon quatre fois CV je l'ai vu récemment ci corniche bi muy sport ama dix ans qu'il est parti à la retraite. ki laa décroché bëgg laal waxtaan mu ne ko dama yàqamti <laughs> moom dafa joxoon nijaay ji CV quatre fois. <laughs> nijaay ji te dem la traité ba pare utalu ko liggéey. utalu ko liggéey ba pare dama yàqamti ñi laan ñilaan laan fay nee na man maa ko mujjee utal liggéey boole ko ak benn waay muy siiru. <laughs> xale yi baaxuñ. non booy baaxuñ. <laughs> booy ils sont <laughs> John Bass nee na goos yow baaxuloo de yow taskatu mboq nga ah. et maintenant quand jarbaat voit ça il faut dire que tonton bi fen rek lay def tu parce que ça c'est bien kii moom si tonton yi la bokk. John Bass moom day moom day kaasal boppam SAV de. bu fekkee dafa des yeneen wala dafa jeex. commentaire mais bien sûr on, on regarde les autres commentaires. Grégoire oui s'il y a des autres commentaires on waaw nijaay yi nga xam ne ñu ngi ci koñ bi wala nekk ci kër gi naan la indil sa CV indil sa CV rek xale yi ñu ngi ci internet bi kon di leen yàq ak musiba <laughs> naaru am yoo xam ne sax commentaire yoo xam ne sax bëgguma ko posté parce que am na boo yoo xam ne sax saaga. Eh, parce que déjà nee nañ ñoom tey ñu ngi leen jox seen CV yi ñu leen tonton dañ leen bàyyi ci biir ñu toog di xaar mais aussi tamit dépendre si euh, sa tonton pour liggéey tamit benn instant dangay ngay jug nga dem nga. yaakaar rek yaakaar dëgg la ñoom ñoo koy laaj sax comme li booy bi wax. bu xew amee wala dese la ñuy ñëw laaj leen ana sa CV nga jox leen ñu dem après mooy loolu duñ la woo duñ la dégg. dem ba retraité bëgg a dajeeg yow wala xam nga gàcce la ñuy am quoi. Mm. déjà loolu loolu loolu lay wone en plus euh, poste bi li tax ma defoon ko mooy comme li nga wax dama defoon benn poste doon tooñ toog si benn bureau bureau Demba Gueye sax laa toogoon. Mm. def benn post naan gars yi donnez-moi vos CV comme ni ko tonton yi di waxee rek. mais am ñoo xam ne dañ ko jàppee dëgg foog ne damay dama nekk si dama dëgg fekk dama doon foofu di ma envoyé ay CV euh, Messenger Twitter. même Instagram di ma envoyé kon mu war leen dëkk bi jeunes yi ñu fi nekk comme ni ñu doon wax léegi rek di chômer dañu bari. Mm-hmm. loolu la woon après nag euh, na ñoo xam ne dañu yaakaar xaaral xool man ñenn ñi nga xam ngi si entreprise yi xam naa leen mu si mën a jàppale. après si la yenn gars yi tamit di ma envoyé ay ay demandes. <coughs> comme am na ñu lay envoyé CV. ñun am nañu fi ay demande léegi di envoyé ne ma léegi mën nga posté demande yi mhm. comme ça ku bëgg liggéey mu contacté ñu am na si mhm. ñoo xam ne boole naa leen ay ak ay ñu comme ñu woote après nag xaw ma fu mu man damay posté demande ku mu nga dem mhm. parce que dëkk bi amul liggéey bu ñu waxantee dëgg jeunes yi ñu ngi fi am amee caissière sax baax na parce que instant bi toogaay bi dafa metti master waaw am na ku ma envoyé loolu ne am na master benn gel mais caissière sax bëgg na kon donc kooku sës na. Mhm. c'est difficile loolu moo fi am. dama am euh, benn xale bu jigéen bu nekk ci sama koñ. Mhm. fukki junni lañ koy fay day yeewu cinq cinq du matin. dang-dang mhm. yi dem ba Liberté 6 taxaw ci benn casque. <laughs> di def ay transactions monétaires. Orange Money. doo laajee dañ naan la noo du opérateur bi directement waaye dafa am ay sous-traitants yoo xam ne ñoom ñoo mm. gagné marché bi ñoom ñoo koy fay. day liggéey ba sonn ndeysaan. boo boo dindee ci weer wi li muy paas. dindi li muy lekk. est-ce que dina dese quinze mille francs par weer. dara du des kay Pape dara léegi kan mooy wax état bu Sénégal en réalité lan mooy xew cinquante mille par exemple moom mooy lu ñuy ndekkee ñoom. bu ñu mhm. demee par exemple toog si benn euh, gargote wala mhm. benn genre restaurant bu chic. li ngay ndekkee en globalité boo jëndee sa ay brioche yow sa ñaari copain c'est c'est ton petit déjeuner. Mhm. nous on espère ça le mois le mois. Pape man de je me dis que umpale wuñ ko vraiment. est xam nañ ko. non ah, Pape ils sûr. savent. pourquoi parce que am na yenn entreprise yoo xam ne ne Pape dinañ xam ñaata jigéen la ñuy harceler. harceler aussi il faut qu'on le dise nga am sa diplôme yëpp nga ñëw entretien d'embauche mais on t'a on t'harcèle xam nga lan lay mujjee entretien bi non est-ce que tu as un copain <laughs> est-ce que. je te le dis parce que honnêtement Malika a eu à le vivre. Mhm. du benn du ñaar du ñett. entreprise des RH man ça m'a fait rire au début je me disais que non c'est juste pour blaguer mais après je me je dis que y a un problème Pape ndaxte suñu demee ba yow nga yaakaar ces entretiens tu viens ñu ñu lay draguer y a un problème mhm. y a un problème Pape et ils sont au courant. <coughs> léegi nag fay au donner de la tête. man de euh, xanaa man de duñu dara nañ ma dara nañ ma daraage bu. <laughs> man de loolu bëggoon naa ko daal. bëggoon naa daal ma dem entretien d'embauche waaye bon. affaire dafa métti de Sénégal dafa tar. dafa métti da ngay gis koo xam ne day nekk université la su ma amee liggéeyu euh, femme de ménage bëgg naa. Pape ñaata étudiant ñooy jaay buntu université des fournitures. qui ont eu leur licence non, ça, ou bien leur master pas, quoi, di nga postuler fépp foo dégg di nga ko postuler Pape dem nga doo amati yaakaar comment nan ngay def sachant que tu as des petits frères des petites sœurs qui comptent sur toi yàlla bu sa yi nekk au village comment tu vas faire yow en tant qu'étudiant tu as une petite bourse de 36 000 tu es logé peut-être à l'université nga war a lekk nga war a naan nga war a yónnee dëkk ba qu'est-ce qui te reste et la politique de jeunesse vraiment les structures là avec les EJ EJ EJ pour parler de de de de politique de jeunesse qu'est-ce que vous faites seen rôle c'est quoi dans le pays. <laughs> qu'en pensez-vous euh, am na ci bu tudd DER dem naa fa ndeysaan doon leen wax ne leen il faut que ñu xool naka la ñuy collaborer ci benn émission comme ça nit ñi xam lii seen seen ay service mm-hmm. après bi ma gisee ni ñu ci taxawee laa ne ah ñii kat xëy na sawaruñ ci. après bon benn kilifa laa dégg moom ne joxoon nañ ko ci 15 millions bu ñu ko lebal. <laughs> ils vont jamais mais am na sax ay jeunes yu ñu financé. te loolu après wax na leen kat financé benn jaaykatu cere benn jeune bu doon jaay cere. kooku je crois que sax Dior Gueye moo defoon poste. Mm-hmm. si moom benn portrait après bon si la gars yi jëlee financé ko. genre bu ñu ko doon def moom continuer ko xaw ma nag mais daal kooku laa laa ci gis ni moom. sur quel critère. Euh, métti na de. waaw Sénégal métti na de billaahi Sénégal métti na. ku ko xamul nag da ngay toog fi nga toog. tu as tu as tout ce te faut. Mm-hmm. xam bu fekkee da nga rëy ba mel ne Pape Sidi. je suis à la télé du lundi au lundi. maanaam bés bu jot damay nekk télé man doo ma dégg mukk ma naan ay maa ngi nuyu bàcc diriger sama xarit bu baax bi parce que jomb naa ko quoi parce que je me dis que man nekk ma fi di Euh, wala ma naan ay diw mu baax nii sama xarit bu gore bi sama jomb naa ko quoi a fait je veux dire parce que c'est quelque chose de ah en tout cas mi ngi noonu métti na te gars yi. c'est difficile c'est difficile nañu bàyyi di juger comme ñuy toog nekk à toog rek yor sa téléphone sa clim clim <laughs> la nga fi yor sa wifi naan non oh, des jeunes inconscients waaw da ngeen fekkee fii jaar naa fii karang karang affaire yooyu noonu bu yooyu noonu nañ ko bàyyi quoi te et puis ñu xool affaire bi lan la nañ xool solution boo xam ne dina permettre jeunes yi ñu toog fii amaat espoir bañ a dem di jël ay risques loolu mooy wax ci. Brésil xam nga lu may metti yàlla ba ñu toog nag ne à votre âge je faisais ça je faisais ça mel ni comme si non mais attendez arrêtez. maanaam à votre âge man bi may jàngi dama woon dox des milliers de kilomètres on dirait que le discours là ñëpp ko récité wala ñëpp ko naan. dama doon jàng si lampe dama doon mais arrêtez. on a compris hein. <laughs> motivateur yi la <laughs> motivateur yi <laughs> ñooy def yooyu de ay j'ai avec avec avec cette plume. avec cette plume mais c'est quoi le le c'est euh, ku ko xam ci internautes yi na ma wax SMIC li ñuy wax mooy maanaam salaire bi gën a suufee bi ñu mën a fay doomu aadama SMIC sénégalais fan ak toll. ñaata la nañ y a une ah, loi qui a lan. voilà ah. SMIC bi lan la. c'est quoi notre sax ba euh, wax le SMIC en fait. <laughs> fii dañu toog sax ba wax le SMIC. non mais maanaam li nga xam ne waroo ko fay nit ba bu ngeen boo koy ah liggéey loolu mooy le minimum le salaire minimum d'interférence mhm. ah oui c'est combien ah je ah? yow da nga tux wala non. 92 <laughs> pour cent des Sénégalais qui travaillent perçoivent 50 000 à la fin du mois nga que respecté nañ ko. c'est ça est-ce que respecté nañ ko. gars yi à 53 000 de la part de Serge. Cheikh sama xarit cinquante deux mille cinq cent. man sama premier salaire soixante mille la woon. cinquante mille soixante mille cinquante mille moom mooy SMIC bi daal nañ jàpp ne fukki junni mooy SMIC Sénégal. te am na fooy toll. début bi da nga koy jël. Babi. ngay juge Pikine man soixante mille lañ ma. ah Lamine j'ai vu ton message maa ngi ciy ñëw ci kanam. xam nga ngay jugee Pikine paas bëgg ndékki yow te boo fayee ko maire yi di maire bi di ko jox dara. di nga di nga jox say sœur wala say petit frère. eh Lamine est-ce que mën na ma bàyyi mën na ma Europe c'est 1200 euros. waaw <laughs> c'est presque un million ah Europe. <laughs> mais bon boo nekkee liggéey kat clandestin dafa am ñoo xam ne dañuy am nationalité laal aussi il faut que ñu wax ko gars yi ne leen bu ngeen demee Europe te amu leen kayit dañ leen di exploiter fu ñu leen waroon fayee 1200 euros dafay am koo xam ne dafay encaisser seen xaalis. Mhm. fay leen 800 euros wala 400 ah euros. mais boo seetee ba seet sax loolu. loolu mooy lu ñuy xool dañ naan ne 1200 euros moo leen gënal nga leen di fay ay 60 000 75 000. bàcc fii da jàng ba dee. nga ñëw euh, si si stage rémunéré par exemple. on te uh-huh. quinze mille mois. te su dee. stage rémunéré ça va rémunéré yoo xam ne doo fayeeku te dañ lay bëgg a yoon di la ay pain jëndal pinton ay jëndal ma lii <laughs> c'est pas à la base le but du stage euh, salaire bi balaa moo ñëw jeex na de boo xuloog boo xuloog sa boss dem ci kanamu yoon yow yow yow yow nu mu mënti def yaay perte ndax amoo loo fayee law ka <laughs> waaw c'est dur en tout cas gars yi ngi lay sant bu baax di la gërëm parce qu'on a un artiste qui doit venir mhm. euh, maa ngi doon wax léegi gars yi ne leen seen o lan ngeen ci xalaat lan mooy opinion wu Sénégalais yi on a fait un petit sondage virtuel on a quand même quelques images après si seen opinion li di wax si seen o gars yi dañ koy jël en même temps simultanément buy automatiquement en commentaire dinañ ko mën a bindal gars yi euh, ce sera dans quelques instants en attendant les événements Bathie merci beaucoup. merci beaucoup tu nous rappelles la cagnotte. waaw di rappeler gars yi campagne bi campagne am naa sac scolaire bi déjà. Euh, comme ni nga doon defee chaque année daaw dañu defoon 300 kits lañ joxe woon te daaw médiatisé ko woon sax mhm. dama gisoon ay bonne volonté ak man samay petit moyen ak sama gars ñu def ko am nekk 300 kits affaire bi dem bu ëpp loxo am ñoo xam ne dañu mhm. arranger comme ça affaire bi gën a yaatu ak contexte surtout ak contexte Covid bi. Mhm. nga xamante ne ñu bari parents bari liggéeyatuñ dañu perte seen liggéey sonn nañ déjà am na ñoo xam ne daaw yow de daaw yaa ñu joxoon kit ren yow la ñuy xaar. yaa ñu joxoon gannaaw lañ si yow lañ ko yaakaar. billaahi keroog benn maire loolu la mu wax. donc moo tax affaire bi ma bëgg mu gën a yaatu ren da si gars yi jàpp. nañ dem def www jàpp si point sn dañ gis campagne bi. ñu participer par Orange Money e-money wala par carte bancaire wala ñu woote si 77 251 23 97. ku si mën jàpp daal nga jàpp si rek te yàlla tax. waaw parce que lii initiative la bu Bathie Drizzy mi lancé. voilà mi ngi noonu boo xam ne dafay dimbali ñi nga xam ne seen loxo jotewul seen ginnaaw juróom junni ak ñaar téeméer muy 6000 francs ci lay dajale ak gars yi internautes yi li ñu ko jox moom ak li mu am. Mhm. mu dajale ko. ut ci ay kit scolaire xale bu nekk ci banlieue bi ñi nekk en région te amuñu euh, possibilité am fourniture scolaire mu mën leen jàppale mhm. et ça l'appuyer c'est appuyer euh, une jeunesse euh, qui n'aurait pas les moyens de de se permettre d'avoir des fournitures à temps parce que gars yi dinañ am fourniture mais yaay may ma ma jënd biig cent francs xaaral ma dem sa nijaay mhm. Pape Seydi mu may ma téeméer ma jënd ñeent fukki ceeb ak ñaar ñaar fukki ma jox la ko li di des ma denc ko pour xale yi bu ñu jooyee ma mën leen ci jëndal lu ñu lekk ak yooyu. Sénégal a toll noonu Sénégal a dëgër Sénégal a métti. Bathie merci beaucoup. merci beaucoup Pape Sidi merci beaucoup à <coughs> tous les spectateurs internautes yi aussi maa ngi remercier ñëpp. tey aussi maa solal sama bopp temps yi moom mooy <laughs> am nga ku la solal am naa ku ma solal mais damaa mu ngi Sicap Plateau. alors euh, on marque une petite pause on a un artiste du nom de Ado on va parler d'acoustique dans quelques instants juste après une petite pause si kanam si deuxième partie bi la ñuy waxtaanee li nga xam ne moom moo di seen ay facture ndox seen eau le rapport que les Sénégalais ont de seen eau on a fait un petit sondage virtuel vous allez pouvoir découvrir l'opinion des Sénégalais ce sera juste dans la deuxième partie bàcc jaajëf.